yegg si nañ ci fas yéene ci dalal euh, Seydina Omar Ba euh, kilifa gi ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay Abdoulaye naka euh, suba si. alhamdulilah am na ci solo ñu fas yéene feggoog yow xool li réew mi yendoog la mu fanaanoo Walf Quotidien lam ñu xëyee. waaw Walf Quotidien dafa xëyee dellusiwaat ci ki nga xamoon ay defee mu am na mandataire ma nga dem ma nga woon fële fële ca makkaanu des DGE ngir repérer li nga xamoon de fiche de parrainage Ousmane Sonko waaye finalement dañ ko mujjee tere noonu la ko yéen gi xëy fësale moom ay defee nag yëkkati na kàddoom daal di ñaawal taxawaay suñu administration bi ñu jàpp dafa am ay bandi di leen rax yéen gi ci loolu la xëy fësal Abdoulaye. ngoog euh, fës euh, gi euh, di ba ñu wéyoon. Mm-hmm. léegi ñu ñu wéyoon. gi ci dugg nga xam ne mekk nañ ko e. ne neexul ba neexul fii ba keroog muy sotti kii di Thiendella dafa woon ak péetam yéen gi moo xëy fësal lu ni mel. Mm-hmm. kii di mu Ndiaye Sène muy directeur exécutif bu ONG 3D yëkkati na ay kàddoom kon daal di ñaaru taxawaay lu ni mel nee na mel ci pré contestation la ñu nar ci pré

ci avocat Ousmane Sonko yi nga xam jamono ci Euh, dañoo fas yéene euh, taxawu waa Sénat ñu bëgg daal mooy ñu jël euh, fiche yi jox ko ki nga xam ne Ousmane Sonko noonu la ko yéene kaay gi xëy fësale yéene kaay gi ne neexul ba neexul waaye kii di Ousmane Sonko mhm. dañ ko war a jox ay fiche de parrainage am ndax moo ko jox ndax yoon moo ko digle mu nekk nag loo xam ne nii moom la avocat Ousmane Sonko yi di fësal donc leneen lu fës mën nañoo jël place paasu ñii di waa di 24 wa xëyee dalu siwaat ci Ayib Daffé bi nga xam ab maakaan gu bees ubbi tegi ñu ko def ci teewaay njiitéeru Macky Sall ndaje mu wees doon occasion ci moom mu daal di delloo njukkal kon suñu état major bi wax ne ne du yàgg dara maanaam fii 2025 bëggan daal ñu toll ci fanweer ak junni fanweeri junni ak juróom ci ay doomu aadama noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale yéen kaay gi na xëy dellu si ci crise migratoire bi Bougane Gueye Dany ma ngay xam ne ne am na daal ay proposition yu bees yoo xam ne ni daanaka dina ko jox ndaw ñi su ko defee ñu mën cee jàpp noonu la ko yéen kaay gii réew mi quotidien la ñu kaay gii lépp lu jëm ci euh, loo xam daal ñu ngi koy def jaarale ko ci réseaux sociaux yi la moom président nee na daal loolu di ko bàyyi mu jàll taxaw a kaay euh, Ba ci suñu lamb waaw suñu lamb yéen a kaay dafa xëyee euh, dalal tey Modou Lo mm-hmm. Modou Lo nag xam ne ne tey ji la gën a taxaw ngir jàmmaarloo kii di Ama Baldé noonu la ko yéen kay gi xëy fisale moom moo Lo nag dafa mu toll nii pare na mhm. pare na euh, bés lay xaar mhm. euh, mu nekk nag combat boo xam ne ñu ngi ko dëjee man ñu ngi ko bàyyee euh, ko duppee kii di Tafage Tafage gi nee na nag bi mu ngi koy jël dëjee ko ki nga xam moo di Momar Ndiaye mhm. noonu la ko yéen kay gi suñu lamb xëy fisale Abdoulaye Ngog fës nañu Seydina Omar Ba ci xëtu yéen kaay yi daanaka actualité bi dafa tënkuwaat ci coowal pare